amul lenn loo xamante ne ci potentialité Casamance amu ko. amul lenn. amul lenn. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi première campagne bu Diomaye Faye moo ngi nii non vraiment gars yi da ngeen a yëpp Sénégalais yi. kii di wax allo alo allo mel ne ku nekk ci Sonatel moom dafa mel ne ku tiit daa mel ne élection yi daa dis ci moom kii maanaam li ngeen ko dugal ci bopp bi nii sax xamu ko barki Serigne Babacar Si ngeen jëndaloon ko ay paanu koko ah ay madd ay batan seek ay ay ay kii ay légume ne ko demal jaay moo ko gënal kii kaw kaw dëkk la vrai kaw kaw la jumay xamul dara ndeysaan dama ko yërëm sax alo alu alo alu alu maanaam moom xamul fu muy taxaw juma yi ci boppam moo xamul kii moom mun tayu réew mi moom barki Serigne Babacar Si kii vrai kaw-kaw la laa wax kii ngeen di tëkkale ak Amadou Ba mais da nga ne Sénégalais yi kii Amadou Ba day moromam moo ko gën a présentable ëpp ko xam-xam gën koo jàng ah waaye yow Amadou Ba day moromu kii kii ngeen koy tëkkaleel kii di mel ne jaaykatu koko kii maanaam politique la xamul dara li ngeen ko dugal la xamul gisoo day rappi rappi di tiit moom daa mel ne ku wérul non mais sénégalais yi da ngeen di font bu dee kii ngeen yaakaar pour mu jël réew mi de barke Serigne Babacar si kenn du ko jox kii dafa mën a kii mu ta doon sax chef de ville garde corps du sax xeeb nañ ko pour mu doon ko waaye da ngeen a yabaate waay seetaan leen kii sénégalais yi kii Amadou Ba day morom da waay am na benn vidéo nag bu Ousmane Sonko doon doon xasee ama Ba ci fonctionnaire public dinaa leen wax dinaa leen dina dinaa leen indil vidéo bi Ousmane njëkkoon a wax ak li mu waxaat yéen toog leen di connecté rek wasalaam